man li ma jaaxal ci hôpital bi yàgg naa fi trop mais léegi hôpital bi boo ko seetloo léegi daa dañoo mel ni ay picc toor-toor yu weex yooyu. foo génn sa femme bulu borom blouse bu weex ngay kii ngay dajal soldat yu weex takk sa blouse te man damay gis ñoo xam yi sax lu caag daaw ñu liggéey ci daaw daaw daaw ñu liggéey du ñu ay mais lan moo waral loolu. waaw papa loolu dama koy dëggal. ndaxte léegi moom hôpital ba la am doy na waar ku jóg rekk sol tëbi waaye lépp nag baraaloo yi moo ko waral dangay gis koo xamante ni nii jàngul jàngam soriwul nga gis koo xamante ni day dem jàng am diplôme yépp tey kooku noonu jàngul ñëw seefe ko koo xamante ni danga koy gis yow bu tëlee yow miy am diplôme yow lay woo te pour pourtant moom mooy sa chef nga gis tam ñoo xamante ni nii dañuy yor dañuy ne indi ay malaat ci hôpital bi duñ leen respecté ñu leen di gëdd di leen yuuxu loolu yëpp ñàkk def formation moo ko waral parce que formation bi boo ko defee am na yenn yoo xamante ne yow doo ko def loolu yëpp ñàkk formation la ñàkk jàng ñàkk ab éducation loolu léegi moo ko waral bac sax da nga koy jënd wala leneen ak leneen nga ñëw tey dem nekk médecin wala nga nekk sage femme wala dara nga ñëw di yor ay malade di def lu la neex te duñu xalaat ni ëllëg mën nañoo feebar ñun dajeeg ñu mel ni ñun donc dañu war a xoolaat loolu moom bu baax man nag su ma jógee dinaa ci gën a waxtaanaat ak samay mbokk yëpp incha allah. jërëjëf Sow si yow euh, sa bunt man maa ngi ci biir hôpital bi di di di di jaabante mais dama fay dégg ay coow bër yi jàppal bàyyil bàyyil bàyyil mais entre maag yi ak garab yi foofu sa bunt bi réglé ko te loolu nu mu mën a amee man loolu ma la lay laaj nu mu mën a amee waaw mais wax ni lépp moom moo am parce que boo xoolee nit ñi ñoo bokkul yam parce que hôpital nit du nekk moo fay ñëw te kenn ku nekk boo ñëw da nga si jub moo tax porte bi par force mu mel noonu mbaa mu méttee noonu parce que tey kenn ku nekk sa jikko balaa mu yegg ci biir hôpital moom ñun ngay njëkk daje parce que ñun ñoo mais problème bi lépp lépp lépp nag ñun ñoo war a mën a am benn xolu yërmande ak comprendre nit ki parce que kii am malaat jaaxle kooku lu yëngal xolam dafay yomb kon ñun ñoo leen war a mën a dalal tatagu leen ba bu ñu ñëwee problème boobu ñu jëlee ak coono gi ñu jëlee andi ko. noonu ñun ñun jëkk leen a dalal balaa ñoo gis sax médecin mais papa léegi boo gisee liggéey yëpp dafa yàqu nit ñi ñoo ngi dugg ci métier ci jaaxle wala ñàkk lu ñu am wala amuñu lu ñuy def mais gis nga métier boo gis bu ne bu ci formation amul mbaa jàng amul mbaa tar wi amul coono yi rek lay jur mais nag papa tamit nga xam leen gis nga nit ñi des fois ñooy def yëpp maa tey tamit parce que kenn ku nekk xam nga heure visite. da ngay gis ki nga xam ne ñëw na xam ne nii du heure bi mu ñëw fa di forcer mbaa di am na muy defante boobaa tamit boo fekkee tamit xale mbaa kenn koo xam daf des fois tamit coow yi loolu koy mais ka fa nekk tamit su ko mënee baamu dugg te yàlla tax xam ne du ko wàññil dara tamit war na ko mën a def mais papa man est ce man li ma mën a muñ ka fa ne dina ko mën loolay coow li mais incha allah jàppal ni bis bu ma fa demee non dinaa gën a waxtaan ak ñoom parce tamit. xel matul te nit du doy parce que maa ngi ñaan yàlla di liggéey loo xam ne ëllëg bëgg naa def lu rafet bu ëllëg fu samay doom dem ñu bañ a am jaaxle et puis nga xam ne nit ki sa la nga nekk ci la euh, ci nga mën a baax ci nga mën a jaamoo yàlla pour ci la ñu war a mën a profité def ci lu naaj lu rafet loo xam ne ëllëg tamit suñuy njaboot fu ñu dem duñ sonn mais loolu moom papa moo ko si jaaxle incha allah bu fi ma demee poste ba dinaa waxtaan ak ñoom bu baax. jërëjëf Sow euh, yëpp parce que yàlla rek moo mat doomu adama matul waaye tamit euh, ma gën leen a dama bëgg doomu adama yi nit ñi nañu xam ne jàmm yàlla moo fi sës parce que borom yaa ngi taxawaal amuloo diplôme jànguloo ba noppi nekk foo xam ni fa nga ñuy toggee wala ngay fobeere ñu xëy ñëw nga sol blouse de monter ay guddi ñu la fay bàyyi ak malade bu urgent amee ba bu malade amee ñu woo la te yow amoo diplôme amoo dara perfusion sax mënoo ko firi man gis naa ñoo xam ne dañuy perfuser nit di jam di roppi muy nàcc ñuy jam di roppi muy nàcc mais ñoom jànguñu ko kon nañu xoolaat ñi mën métier yi ñu jox leen ko te bàyyi guddi loxo baranoo fi am naa fi doole rek yaa ngi def erreur di dugal koo xam ne mënul métier mi boo léegi bu bu defee benn problème bu kere yooyu di nga am bakkaar. gis nga lool nga wax ni ñun ñoo ngi koy dund te ñu ko xel gis nga nag képp kuy def yëpp maa tey nga yaakaar ne la ngay def ñun baadoo rek ñoo ñoo ñoo ñun ñoo koy euh, ñun ñoo ci lool yaa ngi nax sa bopp ak ñun ñëpp dañoo am ay njaboot man ël kii def loolu ëllëg bu mu xam fan lay njabootam fu muy dali gis nga temps bàyyi ñun Sénégal li poste yëpp ñu politique yoo ko baa yëpp ñu joxe ko dinaan def ko ay affaire de donnante problème yi du fu mës a jógee même cas yi problème yi c'est-à-dire médecin yi yërmaande dafa war a jiitu si yow ñun suñu médecin yi amatuñu yërmaande fa fii kuy dem hôpital te léegi xaalis doo faju li xam ne médecin amuñu formation mais médecin lu leen njëkk wax mooy wallul ki ñu xam dafa nekk ci dans ci dund ak dee li nga war a njëkk a lijjanti mooy na dund ba pare doo ko lijjanti xaalis mais ñun suñu médecin ba ñëw fii def yaa ngi dund ak yaa ngi dee lijjanti kon wóor na la formation boobu amatul te dara waru ko muy poste yi nga xam see pour si kele ñun ñi di ko jàpp di ko politique Sénégal fii ba mu daj directeurs yeeg général PCA ñëpp ay ay politiciens la léegi kon ana qualification ana xam-xam ana diplôme amatul mais ñii seen métier bi dafa moo njëkk a dee te métier bii bu dee moo jàngale yam dara du dox ci Sénégal dara du dox ci àdduna moo tax métier yi jar a bàyyi xel la.